coronavirus dina continuer di di ñëw dañu fàtt xam nga mooy ban ne ne Aïcha mooy coronavirus bu nekk ca palais présidentiel di politiquer askan wi di politiquer alal bi. di foowee suñuy réew loolu yëpp dinañ ci ñëw loolu yëpp dinañ ci ñëw parce que tout à l'heure aussi da nga soulever benn point bu am importance muy priorité euh, tey jii euh, on le sait maladie tropicale dina rey euh, lu toll ci cinq cent mille personnes on va dire par jour est-ce que loolu tamit nekkul benn priorité boo xamante ne bàyyi nañ ko en da ngay dëggal li may wax ak li ma tontu Mohamed c'est parce que coronavirus bii ñi muy gën di faat mooy nit yi nga xam ne seen der dafa weex moo tax ñu déclarer ko super priorité. Uh-huh. waaye bu doon faat rek ay nit yoo xam ne seen der dafa ñuul kon kenn du ko def priorité xiif defuñu ko priorité ci àddina bi ndaxte ñen ñooy dee ak xiif mooy nit yu ñuul yi sibiru defuñu ko priorité fan na sibiru am Afrique Ebola. du priorité lu tax parce que Afrique analphabétisme du priorité lu tax ndaxte Sénégal moo am téeméer boo jël ci askanam juróom fukk ak ñeenti yi mënuñu jàng a ba jàdda donc effectivement ça ne sera jamais une priorité mais priorité la war a doon ci ñun ñun ñoo war a am fulla ak fayda moom suñu Afrique moom suñu réew am lu ñuy woowee souveraineté alimentaire maanaam moom suñu bopp ci wàllu lekk am souveraineté ci wàllu wérgu yaram maanaam souveraineté sanitaire am souveraineté ci wàllu garab maanaam su garab yi ñuy faj ñu koy produire fii Sénégal fii Afrique waaye toog seetaan sa doom sama doom suñuy rakk yu amagul deux ans seen ñàkk téeméer boo jël juróom-ñetti fukki mu ngi jóge bitim réew ba tey juróom benn fukki at après indépendance nga fone dëgg la donc effectivement ñoom seeni askan suñuy xarit lañu suñu ay mbokk lañu waaye seeni njiit yi leen di noot di ñuy noot lëkkaloo si ak ñun suñuy njiit yi ñuy noot duñu gan duñu xarit du ñu mbokk effectivement bu dee Macron mooy Dupont Dupont du mbokk Demba bu dee Donald Trump mooy Dupont Dupont du mbokk Demba effectivement loolu fokk